Je prends la parole au président euh, de la Fédération des associations des petits-fils et de Mam Massamba Cham, M. Ibrahim Iyan Cham, au nom du Conseil des sages également de la Fédération dont le président est Ibrahim Cham. Euh, Kellel. Je prends également la parole au nom de l'ensemble des membres du bureau ici représentés, que ce soit les membres au niveau du Sénégal au niveau de la Gambie, au niveau du Mali et de la Mauritanie. Donc nous sommes ici pour nous rappeler, pour nous remémorer la vie et l'œuvre de notre illustre grand-père, Mamma Samba grand érudit de l'islam, qui a eu à enseigner la religion à beaucoup d'autres grands érudits de son époque, dont Mamma Rambake et plusieurs autres érudits. Donc, euh, nous nous avons dédié cette édition à Feu Mourchid Ahmed Yancham, notre père également, qui durant plus d'une décennie a recherché le tombeau de notre grand-père, l'a retrouvé et à l'occasion de chaque année, nous venons nous recueillir au niveau du mausolée, d'abord pour nous remémorer sa vie et son œuvre. Nous estimons que cela cadre parfaitement avec ce que nous vivons aujourd'hui parce que ce sont des références avons besoin de références Mais avant d'avoir une référence aussi, il faut avoir un passé. Et Mama Samba c'est notre passé, c'est notre histoire. Nous nous en inspirons pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée C'est une journée qui a vu la participation de l'ensemble des petits-fils et des petits-filles, petites filles de Mama Samba qui sont éparpillés à travers le Sénégal, dans toutes les régions, dans tous les villages. Vous verrez un village Tchami. Ils sont pour la plupart des descendants de Mama Samba mais Également, nous avons une branche qui est issue de la Gambie. Madame Aïssato Alouar est là, elle en parlera. Il y a une autre branche qui est de la Mauritanie, une autre branche qui est du Mali. Donc, nous, nous avons créé une fédération afin de réunir toutes ces, euh, toutes ces tous ces parents-là qui sont euh, éparpillés à travers le Sénégal et un peu partout dans la sous-région pour d'abord nous connaître parce que notre, le bon Dieu nous a créés pour que nous puissions nous connaître. Et une fois que nous nous connaissons également ensemble, à bâtir tout ce qui peut faire une nation. Et ça commence par la connaissance de son passé pour aller résolument vers l'avenir. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire que nous gemons les verbes, les, les graines d'une fédération qui, partant de son passé, se tourne vers l'avenir de la meilleure des manières possibles. Nous avons eu à réciter plus de 63 Kamil. Ça a parce que l'édition de cette année est à la famille de Baïnas. ils en sont l'illustre parrain. Et au, oh, depuis une semaine déjà, ils ont commencé au niveau de Kaolack à réciter les versets du Coran. Aujourd'hui ici, lorsque nous sommes arrivés aussi, nous en avons fait Et euh, la première des prières que nous avons eu à c'est qu'il y ait la paix la sérénité, mais surtout la cohésion et la responsabilité euh, de tout ce qui compose notre nation, mais également de tout ce qui compose la sous-région, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce que nous vivons aujourd'hui au Sénégal aussi a des ramifications autres qu'une contestation. waaw Gambie nag Mama Samba Thiam bi lu ko fa taal ah, monsieur Ahmed Iyane Thiam nga xam ne moom fu branche ci Mama Samba Thiam nekk fu askan bu nekk na ko laaxal ci moom ci ci itteem ak ci sowarteem ak ci yëmbaane Mama Samba Thiam ñun ci lañ xamee ne bokk nañ ak famille monsieur Ahmad Yane Thiam laata loolu ñun suñu maam Alpha Abbas Thiam Cheikh Omar Foutiyou Tall bi moo formé jihaadam bi ci Orof Fondé moo ko bindoon leetar invité ko muy juróom ñeneenti nit ñi ko ñi ko njëkkaa uysi ci jihaad gi lii moo ñu boole ci famille Cheikh Omar Foutiyou Tall ba mu nekk sëti Boubou Thiam ak Bokar Siré Thiam waxoon naa ko ci kanam monsieur Ahmad Yane Thiam nag in 2019 dañ ko invité liñ papi ñoom Zara Iyane ak ñu bokkal ndey Baye ak ñu bokkal Baye moo oyof lool ñëw mosu ñoo gis mosu ñoo xam moom Mama Samba Thiam moo koy ñor ak diine islaam ci la ñu ñëwal loolu nag conférence ñu jox ko suñ kam kamir boo xam ne suñ maam Ousseynou Mariam Demba Thiam ñu di ko ooyee maam Sina Thiam mu ko bindoon téeméer ak ñaar fukki at juróom kaamiir bi ki ñoo ooyee Moussa Fall mu ngi dëkk fii ci Sénégal xamante ne ban boot ci Sénégal imam la woon moo doon bindalu kamir bi doomi soxna Ndiaye léegi nag ñu owoon nag invité mu sit mu ñëw dafa ñu conférence ci Mama Samba Thiam ñu jagleel leen ko moom El Hadj Abdoulaye Niass ak monsieur Ahmad Iyane Thiam ci la ñu yóbbul kaamil bi ci muséum yi Gambia ilimaan yee kilifa yi yëpp ñëw fa noonu la waa Gambie commencé nag ñuy forme di def WhatsApp group ci njiitali monsieur Ahmad Iyane Thiam ak Cheikh Tidiane Thiam président coordinateur Thiam yeen xalwaar Mama Samba Thiam famille ba léegi am nañ WhatsApp groupe Gambia waa Suukuta bokk nañ si alkaali ko su Thiam léegi man bi ma jëlee président yaa moom laa ko jébal fi mu nekk nii ñun waa euh, Gambia ñu ngi bokk ci bureau fédéral FAP ma ma Samba Thiam bi nga xam ne suñ président Ibrahim Iyan Thiam moo ko jiite léegi ñu ngi gërëm ministre Zahra Iyane Thiam di gërëm ñoom na Nawal Iyane Thiam ak jabati monsieur Ahmad Iyane Thiam gi ndig lii yëpp ñoo ko fere lii lu métti la ñoo ñoom ah, ñoo def exposition bi ferement bi yëpp macha allah liggéey bi rafet na ñu ngi eh, gërëm waa kër Mawlana Cheikh Al Islam di gërëm waa kër Maam Bamba suñ mbokk yi murid yi dañ ñàkk añaan ndig suñ añaanu toon kon kenn du ñeme ñëw wax ne Mama Samba Thiam moo jàngal Mame Maram Mbacké di gërëm waa kër Mamadou Malick Sy ak suñ kër Cheikh Modou Foutiyou Tall ak waa senegal yëpp. tey jii ñu ngi daje fii Mbacké Jolof. fi denc suñ maam ma Samba caam bu mag nga xam ne dañ ne képp ku jàng moo la jàngal wala kala jàngal moo ko jàngal moom lañ ñëw tey ji di ko ziare di ko jàngal ay kaamil di ñaan suñ borom def jàmm ci Sénégal def ko ci addina yëpp parce que Maolana Cheikh l'Islam El Hadj Ibrahima Niass wax na ne ay tànk yaa ngi koy dégg rek mu cogoo ci mm-hmm. lii mi ngi feeñ fii fii Sénégal donc nañ ñaan jàmm sax ci senegal sax ci Afrique sax ci àddina bi bés bii nag tey ñu ko jagleel maam El Hadj Abdoulaye Niass radiyallaahu taala anhu nga xam ne moo juru maam Khalifa Niass mu lew na Niassène moo ñu moo jus Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ci Medina baay ñooñ nag moom lañ ko jagleel moom lañ ko parrainé léegi nag ci bii tiim itam rendre nañ ci hommage Mourchid Iyane Thiam mi nga xam ne moo def liggéey bu rëy bi. fexe ba ñu xam fi ñu denc suñu maam bu mag. maam samba caam loolu nag képp ku ko def amee nañ la njukkal. ñu ngi koy gërëm di ko sant di se ñaan suñu borom dëkkale ko ci aljanna ji kawe. amiin mu dëkkale yontu léegi daal loolu la amoon lu may wax. journée bi lan ngeen fi léegi journée bi jàng nañ ci. 63 kaamil bi ñëwaatee fii ñu jàngaat fi kaamil yokku na sax ci nombre bi 66 66 kaamil jàng nañ bi biñ paree suñ papa ku ñu wax ba imam Babacar Thiam moo def xam ne bi ñaan jàmm def nekk ci Sénégal nekk ci àddina bi nekk ci Afrique yëpp Seydina Mouhamadin sallallahu alayhi wa sallam man maa ngi tudd imaam tafsir Masamba Ceeg Caam ñu ngi ma tuddee ma Masamba Ceeg Caam euh, borom dëkkub caameen kër Masamba ci Saalum euh, sama wayjur la ndax moom ak sama wayjur ñoo bokk ay wayjur euh, fa tabarakallahu ñu ñëwoon tey nag fii ci Mbàkke joof pour siyaare si raw rawdu suñu maam bi nga xamante ni mooy maam Masamba Caam nekk koo xamante cosaan ay maamam cosaanoo wuñ fii ci Sénégal fan lañ cosaanoo ñu ngi cosaanoo Cham Cham ma nga nekk ca réewi arab ya moo xam bu tey dëkk bu ñuy wax siri ak dëkk bu ñuy wax Jordanie ak dëkk bu ñuy wax Palestine ak dara ci Liban dëkk foofu fi la suñu maam bi nga xamante ni mooy Mahmoud Achami di maam suñu maam maam Masamba Thiam foofu la jógee ko te la ko yëkkati woon mooy wesaare diine lislaam jaar ci gox yu bëri jaar ba Tumbuktu sax fa samp fa ay daara jàngale fa wacc fa xam-xam déparé fa ñëw fii ci Sénégal ñëw euh, ci dëkk bu ñu wax Kobilo ba mu ñëwee loolu liggéey boobu la continuer ba ay sëtam ay doomam ñëw continuer ko ba ay sëtam ñëw continuer liggéey boobu ka ca a ràññeeku nag ndax mbir mu nekk am na koo xam ne moom la ñuy joxoñ baaraam mhm. doomi yonti yàlla yanqooba yi bëri nañ lool waaye yonti yàlla yuusuf lañ joxoñ baaraam mhm. yonti yàlla yuusuf nag ci biir yi doomi yonti yàlla yanqooba yi mooy Masamba Caam ci biir ay doomi baayam mhm. ci xam-xam ba ca ragal yàlla ga ca nitug yàlla ga ca wilaaya ga ca lépp moo nekk ci maam Masamba Caam maam Masamba Caam moomu doy na tiitar tey ci ay sëtam ñu ne seen maam moo jàngal maam Mara Mbakke demul ci jàngale ko waaye dafa def ci moom barke def ci moom wilaayatu ndax doon na ko tarbiyu tarbiyu boo xam ne àggoon na ci jënu lalam wi damm ndax booba mag ñi ay lali bant lañ daan samp mu ne maam Mara guddi na da tey waaye bu subaa na ngeen ma wutal aw jënu lal ma sa defaree sama jënu lal wi maam Mara ne sama sama sëriñ de du ma nangu mukk muy fanaan ci lal boo xam ne tànk ba dafa damm góor gi dem ca jàkk ja bi muy ñëwat mu dugg ci suufu lal bi moom ronu ko nekk jën wi mhm. sama maam ñëw tëdd ci kaw lal bi mhm. dafay daal ni a ah, kii de yàkkamti na nigal ba suba moom mu dem goriw jën ci guddi gi tëdd ba bët sa fajar jot mu dem ca jàkk ja ba mu demee góor gi génn bu da jeeg moom ci yoonu jàkk ji mu ne ko yow yàkkamti nga di man ma ne la woon xaar leen bu bët set yow nga dem di utiw jën ci euh, guddi gi mu ne ko jën woowa day du aw jën waaye man mii la maa bañoon nga tëdd ci lal bu tànk ba damm moo taxoon ma ñëw xuutu fa jën wi mu ne ko nag kon bis ni mu dajal taal bi yëpp ne leen bis ni ki tey ku bëgg a barke toppal maaram Mbàkke dem naag barke ba waaye ku bëgg a xam-xam nag toogal xam-xam baa ngi fi waaye sëñ Muxtaar Ndumbe mbokk kokki nga xam ne adduna bi yëpp xam nañ ko bindi téere boo xam ne benn la ci grammaire arab moo ko jàngal naka noonu itam ahlu pir moo leen jàngal wax nañ ko ci lettre bi nga xamante ni sëñ Mbacké Bousso moo ko tontoon Maulana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass kon kooku mooy Mame Massa Thiam do ak njabootam nag ay sëtam dafa am ñaari yëf yu leen di xaar mooy liggéey bi mu fi sampoon ba mu jur tey ay këri waliyu jur ay këri kilifaay diine ci réew mi liggéey boobu lañ bëgg a dekkalaat jaaree ko ci jàngale alquranul karim di ko jàng di ko jàngale waaye beneen liggéey bi nag mu nekk mu nekk ci kaw mooy ñu xam ne tey Sénégal war jot na ñëpp nekk benn mhm. rawatina këri diine yi te boobu liggéey nag kenn mënu koo taxawee tey kudut ku bokk ci Maam Samba Thiam ndax moom moo nekkoon ci seen kaw tim leen ñoom ñëpp kon moo tax dafa bokk ci liggéeyu njaboot gi tey ñu jóg nag fas yéene lëkkalewaat gën a bennalewaat donte bennoo nañ kër yi nga xamante ni mooy kër yi kilifaay diine ci réew mi loolu ñu ngi ciy dox suñ kamtilaay kattan ndax loolu ki nga xamante ni tey ci waaxam ci ci ci ci ci gëstoom muy mursid Iyaan Caam ci la xabru bi feeñee ci la liggéey bi taxawee loolu mooy melokaanam ndax mënoo koo xamee ne moom waa Kaolack la munoo xàmmee ne moom waa Tivaouane la munoo xàmmee ne moom waa Touba la wala feneen la moom ñëpp fi fépp la moo tax kon nag loolu lim ci doon junj mooy benn ne këri diine yi loolu nag ci lañ fas yéenaa def muy suñu liggéey